téléspectateurs yi seetaan Sénégal 7 TV tey nag ñu ngi fii si jumaa bu nekk jëppal en force police bi ñu nekk nag di def levée du corps ki nga xamante ne mooy euh, euh, Mourchid Ahmed Zahra Iyane Thiam di di bàyyi ki nga xamante ne mooy. Euh, Zahra Iyane Thiam di ministre de la microfinance instant nag ñu ngi nekk ci euh, jumaa ji actuellement di def li nga xamante ne mooy levée du corps ñu fas yéene ko euh, julli ngir jébbal ko suñu borom di ñaan yàlla suñu borom rek xaaree ko aljana jéggal ko ay bàkkaaram ñu bàyyi leen rek ngeen wóoy ne ak image yi nga xamante ne moom leen nekk di leen euh, digtal di leen ko jox ngeen koy gis en direct fii si Sénégal set mu Dia ànd na ak imam Papa Gueye ñu ngi leen jël donc imam Paa Sow ci xool ne du gën a waajal ko te dafa ko sax ba mu jël te dañuy jël li ñu gën a imam Papa Gueye soo xam dara wax ci groupement yi ñu ñaanal la yàlla ndax nag dëgg dëgg maa ko wax ji te ñëpp di ji ngir sargal wóor na li xam ne jigéen dafa yàlla yàlla kon ñu daa am sumaxaat yi kàddu yaa ngi noonu te ñu gën a ñu ngi leen di ko ko leen di jàppale. ak ko muy def ci loolu nii. وكذلك وسلام على المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mbokk téléspectateurs yi comme ni ngeen koy gisee nakar ak tiis la am di leen euh, jox li nga xamante ne mooy euh, levée du corps euh, Mourchid Zahra yan Thiam nga xamante ne suñu kilifa la doon ñu jox lépp li nga xamante ne moo ñal jaww ji si ay information moom nag ñu ngi nii di ko indi ngir rek ñu ñaanal ko jullee ko ci jàmm salaam ñaanal ko mu repose en paix kilifa gaa ngi noonu nag comme ni ngeen ko gisee ci image

am nañu yoon ñi nga xam ne lépp am nañu yoon ñoom la ñu nekk nag li nga xam ne ak yoon la ñu am sa ànd yoon ñoom am nañu yoo xam ne yoon te koy daw te bu ñu xam ne yoon te du ko dégg ñu ne ñu ne ñu ne ñu bu ko defee yàlla rek ci mbaa yi ñëpp xam ne loolu dafa war a loolu daal di ko xam nit loolu ci daal di ñaan déedéet loolu ci daal di ñaan ci mbokk bi loolu ci daal di ñaan ci mbokk bi mais moom tey bu njëkk a waay dafa mën nañu ko jaaree ku nekk fii nuyu daal di leen moom fii waaye kenn gërëm sa bopp.

mbokk yi comme ni ngeen koy gisee si image yi nekk ki nga xamante ne moom lañ moo nekk ki doon di jooy nag doom la si ki nga xamante ne euh, moo génne àddina moom nag euh, mu ngi wane li nga xamante ne moom moo xew te mu mettit ko loolu bu koy sante yàlla nag ku gis li xam ne xol tooy na njaboot yi wér te ñuy ñaan ginnaaw bu ñu gërëmee kër gi nii yëpp kër fukki imaam yi juróom ñett yi di jiitaat di ko maa tuddee jiite kër ñëpp ku gis lii gis mbooloo bi fi taxaw yépp nga xam ne ne kilifa bu fi jóge nekkul ki nga xamante ne n'importe kii la yàgg na def jàlloore si réew mi yàgg na dox lépp li nga xamante ne mooy am jàmm ak di dox si li nga xamante ne mooy diine di fàttali suñu diine di jàngal ndaw ñi di delloo si mag ñi. donc mbokk Sénégal yëpp ñoo am li nga xamante ne mooy nakkax ak tiis am nañu perte bu mag bi nga xamante ni duñ ne dootuñ ko amati mais du gaaw comme ni ko ñenn ñi waxee ci seen témoignage. moom la ñuy njaboot ci surtout njaboot bi dafa am lu ñu mën may ceeb ya sama yaay daa ko jox dara ci mbaatu ma naan ko may man de ma ñëw ma mbir yaa fay na ko waaye li ma bëgg a wax mooy ci amatu léegi mu xaritam toog jii di may mu teg ko loxo lool di may kër di may oto di may xaalis jàng nekk ànd ak ngor jàng ko ànd ak ngor moom jaar sëriñ Amady Diagne si xaw ma ne ma dama ci jii di may nga xawoon ma ko. lan maa koy béyee Saalum Faye ci am ñii nga xam ne oto fii fii di mbéy dugg kenn ci sa dugg lu may moom ñu ci des ñëpp bàyyi leen gërëm naa doon béy moom laa ko mën a gërëm mooy gërëm maanaam ngóor kooku moo jeex. gërëm kii nag dafa gën a laaj loolu boo nekkee autorité ñële doon màgg ak démarqué leen wut ñeneen boo ngay wutal ay nangamam nangam moom foofu suuf dignité boo ko gisal ci moom. gisatu ma ko solution borom alal solution ku yàlla jox fonction moom laa ko gisee. jërëjëf Thiès jërëjëf Thiès allah ci lu ci si. Thank you. تبارك الله يعني بوح وقت ذكر الإمام عربي واحد من صلاة صلاة سنة الأول ما ولد ولا شيء في جانب الدين ما ولد في جانب ما يعرف ولا من ذي الدنيا يقول بين الديسيجن ne mooy seen lii mu koy ñaanal yàlla na jërëjëf léegi nag imam seede ne président Braille président Macky Sall njaboot yëpp ci suñu boppam ci suñu tur ñu ngi koy gërëm ci boppam président Macky xaw ma ku mu amoon ci monsieur Alioune yëpp ku mu amoon ci musiba la jeex foofu ko mu foofu njaboot ci ci ci ci baatuma sa dara dama mu ngi jóge ci ministre Mor Sow te dafa jóge ci chef de l'État Mor Sow nee na mënu lépp ci sàkk moom def na ma waxal ko ne bi mu bëggee ci sa tool day dee ci mëtt juróomi sax boo waxtaanee ak moom jàpp na ne góor gi def ko doon dégg waaye nee na ku Zahra bokkal ku la ñu naaw nga ko jikko ndax naaw nga ko nee na président de la président Macky Sall mu ngi leen koy jaay nee na moom mënul yëkkati sàcc ndax doom na ci kër di ñaan yàlla mu si amee ci yàlla kenn yàlla yërëm yàlla yàlla jéggal ba ci maam doom waaw kay mbokk yi léegi ñu defaraat sax yàlla lii monsieur le ministre moom moom yóbbante woon xaaji wàllu wax na ko dénkaane yi nga xam ne góor gi ñu tëral nii waxoon na ko bàyyi ko ak ki nga xam ne moo di imaam Saare waxoon na ko waxoon na bu njabootu Thierno mun na maa teewee ma daane ñu woon ci yoon wi waaye yaxle na Thierno Seydou mu ngi nii taxaw ci ñu garab kon lépp lépp dafay yem ba ci ñu war ko ko bàyyee tey ñaan yàlla subhaanahu wa taala jëmm bi fa mu jëm yàlla na ko gënal ci mu bàyyi ko tey ñaan yàlla ci sunu mbooloo bi ñëw yëpp yàlla na ko yàlla yërëm te jege ko yàlla na yàlla xaare ko àjjana man naa laa gënal sa doyen yàlla na arab doon jaay waaye kaw sëriñ doon dande ko ak jéem sama dem kër ñu ngi ñaan ñëpp mbokk yi defaraat sàpp yi ñu ngi bàyyal Thierno Seydou moom Thierno Moundawa Tall mu joxe li nga xam ne moo di ñaan li nga xam ne moom la ñu war a ñaaral jëmba ji tëdd di mu si diwaan jam jërë ngeen jëf bokk yi mbokk yi imaam Thiam Saïd Nour Tall ne ñu ngi ne asalaamualeykum mbooloo mi ci teraangaam ne kilifaam Thiam Mouhamadul Madani mu ngi ci yoon wi waaye yoon wi xaw na xat mu daa di ne na ko rakkam ji wuutu mu daa ko doy ci lépp tamit ne ñu ngi tàggatoo tey ak mag ju baax ci nga xamante ni dundam yépp ci diine la ko def mu ne du bàyyi dara lépp lu xew ci diine bi mu ngi ci amul kër turam mooy diine lislaam képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah moom jox na la cër waaye tamit joxoon na cër bu rëy di joor ma Muntaqa Ahmad Muntaqa Cheikh Omar ne kooku waajuram la woon kon nag ñoom ñii di njabootu joor ma Muntaqa kenn ci ñoom kenn ci seen mag ñoom ñoo dëkk àdduna tey ne ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm xare ko ajjana te insha allahu am njort bu rafet ne te insha allahu yàlla dina ko jëggal ndaxte moom lislaam rek la doon jë def barke yal nañ yàlla bàyyi ginnaawam lu yàgg yàgg koo ñaanal ak koo saraxal mu ni lii rek la woon xam nañ ni bi jamono bu xat la muy li ñu war tamit dafa bëri kon yàgg ci taxawaay bi du bëgg du lu dañuy daal jublu si ñaanal ko mooy kii dëdd nii góor la li gën a tuuti ginnaaw bi nga sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee mun nga ñaan bi nga ñaan yërmal yërmande rek ak sàkku ko njëgal boo mënul ñaan bi itamit nga wax allahumma agfir lahu warhamhu ci lu gën a gàtt kàbbar yi ñeent la bu imaam ëppalee ngeen sabbaal ko bu fekkee nanguwul ngeen daal di sëlmal bismillah ñu jublu si mbir mi dafa wax rek ne képp koo xam na ko walis ko mu ameel na boo ñëwee ci taawam Moustapha incha allahu taala lépp lu ci war a wax dina ko dox mbokk yi dañuy ñaan rek dañ koy déplacé mais kenn ku ci nekk fi nga taxaw rek nga taxaw si bañ a bouger ñu ngi koy ñaan ñëpp kenn ku ci nekk fi nga taxaw nga taxaw si bañ koy bouger ñëpp ñu ngi yàlla imaam rek la ñu may mu dem taxaw ci kanam ak kenn say ñi ci des ñëpp nañu topp ci gannaaw ok jërë ngeen jëf ñu defar sàpp yi ñun ñëpp nañu bokk defar sàpp yi waaw ñu mënul kii rek nañu dem taxaw ci gannaaw kenn ku ci def nga xaw baax Allahu akbar Zahra Iyane Thiam moom nag tàggatoo nañ ak moom ñaanal nañ ko ci jàpp nañ ni rek yàlla dina ko yërëm te xaare ko aljante stage ni si barkeena Je Vraiment, le vieux là, nous a beaucoup aidé et c'est un grand notre père, notre fils, notre papa, notre euh, marabout, franchement. comme ni ngeen ko gisee ñu ngi jël quelques réactions si ñi nga xamante ne ay jegeñaale ñu ay jegeñaaleem lañu ñu ngi koy delloo nag fi nga xamante ne lañ ko war yóbbu fas yéene ko jébbal suñu borom rek. li li liñ ci mën a seede mën nañ cee wax tuuti ñu nit ndax 2005 ba léegi ñi ngi liggéey ak moom ci croissance croissance linéaire man maa représenté se représenté waa Makka Koulibantang man maa représenté waa Makka Koulibantang 2005 ba léegi ñu ngi bokk di liggéey ci croissance linéaire dëgg dëgg gàcce ngalaama ku yàgg xeexal diina ji ku yàgg ku yàgg xeexal diina l'islam maa ngi tudd Adama Sène maa représenté Makka Koulibantang fii ci euh, dëj bi loolu moo tax ñu jég fi nii ñëw kon nag amuñu mënuñu lu moy di ñaan rek yàlla yërëm ko jégal ko jërëjëf wasalaam. macha allah da nga wax ok déedéet déedéet déedéet man ak taalib di wax maa ngi ziar wér macha allah. Eh, dara dara. doom jaa ngi ne la ñuy jàpp particularité dafa bokk ci premier étudiant yi nekkoon euh, au Maroc euh, nga xam ne ñi ngi euh, jàng li ñu naan religion musulmane donc loolu tamit lu am solo la loo xam ne la tey jii nii macha allah tax na mu bàyyi fii lu lu jëw bu rafet donc koo xam ne la Sénégal moo ko ñàkk Afrique moo ko ñàkk waaye réew réew àdduna bi yëpp ñoo ko ñàkk tey jii nii voilà merci <laughs> mbokk ni ngeen ko gisee nit ñaa ngi def nag seen témoignage ñu jëlaat keneen rek. l'islam ñàkk na soldaaram fii ci Sénégal euh, langue arabe itam ñàkk na soldaaram fii ci senegal waaye jant boo xamee ne bii gën koor daan a jege wala tabaski doon na jege xel yëpp dem ci Iyane Thiam ndax kenn ku ci nekk gis na taxawaay yi mu taxawoon ànd ko itam ay doomu soxna yu mat ba nu taxawal kuréel googu ku mel ni Sidi Lamine Niass yàlla ko yàlla yërëm bu sara Habib Dieye nun ñii ñëpp bokkoon nañ ci commission boobu moom nag mu ko defoon ko xeexam yàlla mayoon ko sutura bu toll ne këru diine goo dem da ngay jàpp ne iyaan foofa la bokk ndax boo ñëwee kër wax dëgg yàlla Cheikh Omarul Fuutiyu radiyallahu taala anhu nga xam ne ku wax diine ci Afrique de l'Ouest wax ko ci Sénégal tudd Cheikh Omarul Fuutiyu iyaan ci am am fu cër bu rëy nga fekk ko Seydi Hadji Malick mu am fa cër bu rëy nga fekk ko tabarakallahu Touba mu am fa cër bu rëy nga fekk ko ñasee nit mu am fa rëy ndax ba mu demee jàng wax dëgg yàlla ci loxoy Ahmed Iyane si ca Ndar ba mu fa jógee ci loxoy xalifa ñesal dellu taxawaay boobu mu amoon ca foofa nag moo ko mayoon fu mu dem rek am na fa cër waaye nag addinaam bépp dundam bépp da koo defoon rek ki lu dëhëral diine lu dëhëral itam langu arab lu dëhëral tam ñi jàngoon euh, euh, ci wàllu arab ba boo xoolee bokk na ci njëkk a nekk diplomate jaaree ci formation boobu nga xam ne bii ci IAN e ñoom la njëkk a commencé ñun mu nekkoon suñ magu daara ñu dajeek moom affaire étrangère dajeek moom ci représentation diplomatique yi bokk ak moom itam réew mi nekk na koo xam ne kii daal demam wax dëgg yàlla dal na xala jullit bu nekk ndax defalal na yàlla defaral na diine ji defaral na bokk gi defin woo xam ne wii gën bu fi jógee ñëpp danañu jàpp de ki dem tey daal soldaar la bu rëy rëy taxawaay yooyu mu amoon nag sénégalais bu ne na ko bàyyi xel amuñ lu du réew mi amuñ lu du suñ diine ji lu du suñ bokk gi amuñ lu du suñ ngor nañuy wax wax ju baax nañuy rafetal nañuy def loo xam ne boo lëkki si biir dana taxawal suñ diine kenn ku ne sa wërsëg ba ko yàlla bind ju dooguloo keneen mënu la koo yàqal mbaam mu yokkal la ko kon nag nañu rafetal te bas mii fi nekk yàlla na ànd ak iyaan ci am demandoo mu bañ a def ci benn jëyee ci biir réew mi ñu ñaan yàlla na yàlla teg loxo ci réew mii di senegal teg ko ci kilifa diine yi teg ko ci kilifa xaada yi teg ko ci ndaw yi teg ko ci mag yi lu dul yàlla du yàlla te yàlla mu yor ñëpp yàlla yàlla téye réew mi Thank you. départ, mais souhaiter au Tout-Puissant Dieu que euh, qu'il l'accueille dans son paradis céleste et que qu'il donne la foi de pouvoir vraiment supporter cette douleur, supporter Et je vous remercie. le ministre. Euh, rek wax dëgg yàlla ñun ñëpp xamoon nañ ne séntu weer lu jafe la ci àdduna mais confrères yi yëpp nu loon nañ ko loolu te taxoon ñu nungul ko ko ak matam moo taxoon ñu nungul ko ko kon yàlla na ko yàlla fay lépp lu mu jëfoon ci ci àdduna rek amiin jërëjëf monsieur le ministre jërëjëf mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nag jël nañ quelques jegeñaal li nga xamante ne def nañ ay témoignages yu rafet si kii di Mourchid Ahmad Zahra Iyane Thiam ñu continuer rek dem xool li nga xamante ne mooy koor bi ko oto bu ko nar yóbbu jébbal ko suñu borom.

mission bi nga xam ne moom la yore ñu ngi ñaan ci mbaaxu yàlla subhaanahu wa yàlla na ko yàlla teeru ci yërmandeem amee woon na benn mbir boo xam ne moom la ñu ñëpp yaakaare woon moo di jiitaloon na ragal yàlla ci lépp lu mu doon def kon li ñu amal di ko ko ñaan rek moo di ñaan leen ko yàlla yërëm te jégal ko xaale ko firdaws bi jaay Mustafa nabil karim lan a li ñu gën a marqué ci dundam xam nga lu day ni commission chargée de scruter la lune nga jël ko Euh, yore ko pendant des années bi nga xam ne El Hadj Maodo Sylla euh, imam ratib ba génn àdduna joxandoo ko mu toppe loolu ba nëgër ni si demoon na ba tàyyi bëggoon na bàyyi waaye nit ñi ñoo ko forcé woon rek ngir mu continuer yor mission boobu alors il a également à bon port li nga xam ne moom moo am rek moo di ñaanal ko yàlla lépp li nga xam ne li nga na ko si xam ne fi lañ ñun lu am rek moo di ndokkeel njabootam bi nga xamante bi bi mbir amee jël ñu kër macha allah rabbul alamin du ñu def rek loolu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla koy àjjanaam Thank you. Euh, mbokk yi nag yéen ñi doon seetaan Sénégal 7 TV comme ni ngeen ko gisee nag actuellement ñu ngi nekkoon euh, fii si euh, jumaa Jëppal nekk en face police Jëppal nag ñi fi doon def levée du corps ki nga xamante ne mooy Mourchid Ahmad Zahra Iyane Thiam ñoom nag dem nañ jébbal nañu ko suñu borom ñu fas yéene ko yóbbu nekk fële ca di ñaan yàlla rek xaaree ko aljana te taas ñu si barkeem jéggal ko ay bakaaram yokk xolu muñ ñi nga xamante ne mooy njabootam kon ni ngeen ko gisee sànq si image yi ñaari si doom yu jigéen mënuñu woon sax euh, répondre question yi nga xamante ne taskatu xibaar yi ñu ngi leen ko doon posé et euh, ça se comprend aussi ndax seen xol dafa tooy ndax ñàkk waajur dafa métti surtout ma ñàkk nga xamante ne euh, la woon si réewum Sénégal jàmbaar la woon si réewum Sénégal nekk ki nga xamante ne lépp li nga xamante ne war na ko def rek mu ngi koy def donc euh, ñu ngi leen di jox dig daje rek ba ëllëg incha allah. liñ liñ ci mën a seede euh, mën nañ cee wax tuuti ñu nit ndax 2005 ba léegi ñi ngi liggéey ak moom ci croissance croissance linéaire man maa représenté représenté waa Makka Koulibantang man maa représenté waa Makka Koulibantang 2005 ba léegi ñu ngi bokk di liggéey ci croissance linéaire dëgg-dëgg gàcce ngalaama ku yàgg xeexal diine ku yàgg ku yàgg xeexal diine l'islam maa ngi tudd Adama Sène maa représenté Makka Koulibantang fii ci euh, dëj bi loolu moo tax ñu jeg fi nii ñëw kon nag amuñu mënuñu jërëjëf wasalaam. macha allah da nga wax kay déedéet déedéet déedéet man ak taalibi du wax maa ngi ziyaara wér macha allah. Aïdara Hadi, hadi, hadi. dafa am une particularité dafa bokk ci premier étudiant yi nekkoon euh, au Maroc euh, nga xam ne ñi ngi euh, jàng li ñu naan religion musulmane donc loolu tamit lu am solo la loo xam ne la tey jii nii macha allah tax na mu bàyyi fii lu lu jëw bu rafet donc koo xam ne la Sénégal moo ko ñàkk Afrique moo ko ñàkk waaye réew réew àdduna bi yëpp ñoo ko ñàkk tey jii nii voilà merci <laughs> comme ko gisee nit ñaa ngi def nag seen témoignage ñu jëlaat keneen rek. l'islam ñàkk na soldaaram fii ci senegal Sénégal euh, araab yi tam ñàkk na soldaaram fii ci senegal waaye jant boo xamee ne bii gën koor daana jege wala tabaski doon na jege xel yëpp dem ci Iyane Thiam ndax kenn ku ci nekk gis na taxawaay yi mu taxawoon ànd ko itam ay doomu soxna yu mat ba nu taxawoon kuréel googu ku mel ni Sidi Lamine Niass yàlla ko yàlla yërëm Bousra Habib Dieye nun ñii ñëpp bokkoon nañ ci commission boobu moom nag mu ko defoon ko xeexam yàlla mayoon ko sutura bu toll ne këru diine goo dem da ngay jàpp ne iyaan foofa la bokk ndax boo ñëwee kër wax dëgg yàlla Cheikh Omarul Fuutiyu radiyallahu taala anhu nga xam ne ku wax diine ci Afrique de l'Ouest wax ko ci Sénégal tudd Cheikh Omarul Fuutiyu iyaan ci am am fu cër bu rëy nga fekk ko Seydi Hadji Malick si mu am fu cër bu rëy nga fekk ko tabarakallahu Touba mu am fa cër bu rëy nga fekk ko ñasee nit mu am fa rëy ndax ba mu demee jàng wax dëgg yàlla ci loxoy Ahmed Iyane si ca Ndar ba mu fa jógee ci loxoy xalifa ñesal dellu taxawaay boobu mu amoon ca foofa nag moo ko mayoon fu mu dem rek am dafa cër waaye nag addinaam bépp dundam bépp da koo defoon rek ci lu dëhëral diine lu dëhëral itam langu arab lu dëhëral tam ñi jàngoon euh, euh, ci wàllu arab ba boo xoolee bokk na ci njëkk a nekk diplomate jaaree ci formation boobu nga xam ne bii ci IAN e ñoom la njëkk a commencé ñun mu nekkoon suñ magu daara ñu dajeeg moom affaire étrangère dajeeg moom ci représentation diplomatique yi bokk ak moom itam réew mi nekk na koo xam ne kii daal demam wax dëgg yàlla dal na jullit xala jullit bu nekk ndax defalal na yàlla defaral na diine ji defaral na bokk gi defin woo xam ne wi gën bu fi jógee ñëpp danañu jàpp de ki dem tey daal soldaar la bu rëy rëy taxawaay yooyu mu amoon nag sénégalais bu ne na ko bàyyi xel amuñ lu dul réew mi amuñ lu du suñ diine ji amuñ lu du suñ bokk gi amuñ lu dul suñ ngor nañuy wax wax ju baax nañuy rafetal nañuy def loo xam ne boo lëkki si biir dana taxawal suñ diine kenn ku ne sa wërsëg ba ko yàlla bind ju dooguloo keneen mënu la koo yàqal mbaa mu yokkal la ko kon nag nañu rafetal te bas mii fi nekk yàlla na ànd ak iyaan ci am demandoo mu bañ a def ci benn jëyee ci biir réew mi ñi ñaan yàlla na yàlla teg loxo ci réew mii di senegal teg ko ci kilifa diine yi teg ko ci kilifa xaada yi teg ko ci ndaw yi teg ko ci mag yi lu dul yàlla du yàlla te yàlla mu yor ñëpp yàlla yàlla téye réew mi Thank you. départ, mais souhaiter au Tout-Puissant Dieu que euh, qu'il l'accueille dans son paradis céleste et que qu'il nous donne la foi de pouvoir vraiment supporter cette douleur, supporter Et je vous remercie. le ministre. ñun ñëpp xamoon nañ ne séntu weer lu jafe la ci àdduna mais confrères yi yëpp nu nunguloon nañ ko loolu te taxoon ñu nungul ko ko ak matam moo taxoon ñu nungul ko ko kon yàlla na ko yàlla fay lépp lu mu jëfoon ci ci àdduna rek amiin jërëjëf monsieur le ministre comme ni ngeen ko gisee nag jël nañu quelques ñaan yi nga xamante ne def nañ ay témoignages yu rafet si kii di Mourchid Ahmad Zahra Iyane Thiam ñu continuer rek dem xool li nga xamante ne mooy corps bu ko oto bu ko nar yóbbu jébbal ko suñu borom.